mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci ñooñu ak saxaabaam ak taabiin yi ak taabia taabiin ñaan yàlla mu nangul ñu salaatu ak salaam daxañal ñu ko suñu misaanu xasanatina muy farug mbooleem bakkaar te nangu mbooleem jaamu yàlla ak mbooleem jullit jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu siwaat ci suñu barnaamiju jaddil xayaat comme ni ñu ko doon defee ci semaine bu nekk euh, jaddit xayaataka di yeesalal sa dund di jàngale li nga xam ne mooy développement personnel nga xamante ne noonu la jullit bi war a dundee di évoluer ci dundam nànk-nànk ak maytu yenn yi nga xamante ne ay négatif la di jéem a topp yoonu positif pour mën a am réussite totale ci wàllu diineem ak ci wàllu addunaam ñu jàng tey اللي نيا خاني مام نيو الثمر الب الثمن الباهظ للقصاص ماي فاي ما نام نجعلو أب اللي نيا خامن تاني مو نيا كتشي فايو ني دوما دام دفهم مين بني كده في دارا ولا أم جامو فأم فايو رابطنا بفكينا برام خل مو قاتلة هناك دتي ليلك مو يرتي بفهم نك بمنا génn ci yenn yi nga xamante ni léeg-léeg piège lay doon ci moom bokk na ci piège yi nit ki nga xam ni dafa yëg màggaayug boppam dafa yëg màggaayug maanaam yëg ak darajaam ni dina am daraja ba yëg ak darajaam loolu ci piège yi la bokk ah, bu yëgee darajaam ak màggaayam du mën a accepter lu tolloog ay ni loo xamante ni luy jëmle ci moom ci kàddu koo xam kàddu ginnaaw la bu mu wala kàddu goo xam ni dañ koo wax ci kanamam day dem ba yegg foo xam ni dootul mën a tolore di wax nit di am xalaat nit dana yegg foofu ci yëg màggaay boppam yëg ak màggaay ci boppam piège la ci moom nag kooku too kooku noqtatu dof la maanaam bu doon li nga xamante ni faiblesse la ci doomu aadama bu defee da koy day dem ba yeggal boppam foo xam ne na ni waratul toog ak nit di wax muy xalaat léeg mu dal nit ñi nga gis koo xamante ni fu mu toog ay idéem rek lay joxe day wax rek maanaam jàpp na ni moom warul déglu kenn ñëpp ku muy ko war di deglu parce que moo gën a yeewu ñëpp ëpp daraja bokk na ci li ñuy tuddee rusuuxu qadami maanaam koo xam ne dafa jàpp ni am na ndëgër laay bu dëgër kenn maanaam toog na ci toogaay bu bu bu mat maanaam fees na fees na siège bi mu toog loolu ca la bokk loolu piège lay ba tax dootul yëg dootul nangu nit di teg ci daram lu mu tuuti tuuti wala di ko cokkaas wala di ko def loo xamante ni dëppoowul ak ay bëgg-bëgg moom day réagir ci saa si bokk na ci ki nga xam ni dafa gëm ni moom dafa set wecc nit ku set wecc nag amul koo gis rek am na ay taq-taq benn mu doon taq-taq yu rëy wala mu doon taq-taq yu yamamaay wala mu doon taq-taq yu tuuti ala kulli xaalin rek nit ku set moom vierge yàlla bind ko ci kaw suuf amul foofu moom ay taq-taq yi mooy lan mooy ay bakkaar yi mu doon def bakkaar yoo xam ne mu ngi ko def ay taq-taq la ci moom ci nak dafa yëg ne moom dafa set wetch set wetch mooy moo yemul ak nit yi kenn waru ko taq ci dara léeg-léeg nga dem ba ñu naan sax suñu askan kenn waru ko waru ko rax masalan kenn waru ko rah maanaam gem na ni moom dafa bokk ci askan bo xam ni ñoo gën ñëpp ñan lañu war a takkanteel di sëy moo ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ne ñoom ñoo set ne ñoom or ko ku set wecc amul koo gis rek am na maamu ndàngam wala baayu ndàngam wala tante nangam wala nijaayu ndàngam wala bàjjenu nangam waaye mën na koo xam mën na ko bañ a xamit nag loolu it piège la ci moom bokk na ci piège yi tamit koo xam ni dafa am ay opposant ba pare jàppi leen ñu tekkiwul dara ñoo xam dañ koy opposé wala ñoo xam ne dañoo ko mel ni comme ay noon ci moom ci misaal mu jàppi leen ñoo xam ni tekkiwuñu dara ci kanamam loolu piège la ci moom it tamit wala mu yëg ne moom ñooñu mënuñu ci moom dara maanaam daf leen tiim amul lenn lu ñu ko mën a wàññi loolu it piège la ci moom wala mu jàpp ne moom am na kattan boo xamante ni ku ko ci co kobas mën na laa sa mën na laa faagaagal ci ay tiers loolu it piège la ci moom lan moo tax mu doon piège yii ma tudd yépp benn yëg mi yëg boppam ci mataay ci daraja wala am am wala juddu yëg gi muy yëg boppam ne moom am na toogaay bu dëgër jàpp gi muy jàpp ne moom deram dafa set wecc yëg jàpp gi muy jàpp ne ñi nga xam ne ñooy ay opposant am wala ay noonam tekkiwuñu dara wala mënuñoo jot ci moom wala yëg gi muy yëg ne moom def leen tiim ñoom ñëpp kàttan yi mu am kenn mënu ko ci ku mu ci bëgg a faagaagal faagaagal la yooyu yëpp ay piège la ci moom lan moo tax moo ñooñu dañuy xam point faible am point faible bi mooy lan mooy du nang dara ko cos du nangu ko cos nit nag bu nanguwul lu ko cos du nangu du mën a du mën a du mën a digérer nit donte ne dafa toog ci barab sax wax ci moom wax bu sew du ko mën a digérer bu dajeek moom faw mu jéem ko ko wan loolu mooy faible la ci moom bu ko defee kooka day xam fi mu koy dompat fi mu koy cuuj saay bu ko buggee déstabiliser rek foofu lay jaar rek pour déstabiliser ko lolou motax buñu ko tegee tuuma wala ñi wax ci mom lu yellul wala mu tok ci barab di wax nit am xalaat opposé ko day doon barul a'sab manam sidit yi day sedd guuy bu sidit yi seddee nga yëg ni mom moy am coppit ciopité commencé mer mer gi nak day juk day juk dem ba yegg ci niveau bo xamanteni pour nga waat ko sax du yomb fi mu koy jëmee nag mooy mën na créer sax tension bu monté ci moom bari na ñuy dee ci ay cardiaque dégg nga ay euh, euh, fi ñu koy waxte sax arrêt cardiaque wala am AVC mer gu ëpp moo leen koy jox mer gu ëpp googu nag bokk na ci li leen koy teg moo yi ñu tudd sànk yëg ak mataay gu ëpp ci moom yëg ak toogaayam bu dëgër yëg ak setam bu mu set wecc ñàkk jàpp gi mu bokkal ay nawle di tekkiwuñu dara loola ca la bokk boo defee lu ñëw rek daf koy bett ba ko bettee nag dina ko yegg ci meraay goo xam ni mën naa yëgal tension mu toll ak une semaine du wàcc wala mu wàcce tension mu toll ak une semaine du wàcc wala mu créé ci moom arrêt cardiaque wala mu créé ci moom li ñuy tuddee AVC bu ko defee baaridul asab foofu lay jógee mer moo xam ne day yàgg cër yi day sedd guy gis nag mu commencé di soppeeku ndax ku ne xam ne ne doomu aadama bu bu buy buy mer mer gi dafa am fu muy tàmbalee mooy soppeeku soppeeku gi nag ci sirit yi lay tàmbalee gis bët yi commencé xonq bu ko defee bu bët yi xonqee gis nag sirit euh, di sedd mer gi nag di jóg nag bu defee bu jugee nag ba yegg ci benn nivo nag dootul am sago nag bu defee nag tatafajjaru sawratuhu mu daal di li nga xam ne mooy fayyu gi mu bëgg a fayyu dal di explosé ci moom foofu nag lay dugalee boppam ci guuta ba mu jëlee fa ñàkke maanaam faat ba kenn wala mu blessé nit wala mu wax wax joo xamante ni ñam kam koy teg ba ilaa yawmi diin ay doomam ci sëtam duñ ko fàtte créer benn tension boo xam ne ci famille wala ci mbokk wala ci njaboot wala ci ay àndandoo walla ci ay xarit yoo xam ne kenn dootu ko defal mën naa doon lu ndaw sax a jóge ci làmmiñ bii loolu moo tax nit dafay war di yar boppam ci wàllu googa yar boppam ci bañ a yëg boppam lu mu am am daraja bu mu ca yëg dara ndax yàlla moo ko moo ko ci jox tuuti moo ko moo ci compal tuuti bu ko neexee mu récupéré waat ko saay bu ko soobee lu mu yëg yëg yëg ak nekk ci bopp nekk ci ay conditions yu baax ci boppam lu mu ko am am am bu mu ca yëg dara lu mu lu mu jàpp ne duggul mësul dugg ci lenn lu taq lenn lu salte lenn luñ koy xeebe bu mu ko naw mukk toujours nay jàppee boppam ne nit ñi rek ab jaam la boo xam ni yàlla moo ko dimbali defal ka tawfiq ba jaarul ci yenn yi te di ko sante yàlla nag lu ay noonam wala ay opposant néew doole bu mu leen xeeb mukk wala di leen di leen doya dal wala di leen tuutal loola déception lay mujj jur ci kawam mën nga jël misaal rek boo delloo ci wàllum jamono xëccoo wàllum politique ak mu mën a doon rek toujours foo fekk ku am pouvoir bu ndërmeeloo ndërmeeloo rek ñamu ko siqal naw nawlawu leen def leen xeeb wala mu tuutal leen wala mu doyadil leen wala di leen jàpp ñoo xam ne tekkiwuñu dara ah ñoom de seeni wax tekkiwu dara fekk ñu ngay nas la nas dañuy jekki rek doon ab bomb boo xam ne nag bu explosé jeex na kenn dootu leen tee fekk nag yaa ngi toog di nelaw dama tax nit dafay waajal boppam ci jamono ju nekk wala lu mata a bàyyi xel la bu ko defee yooyu bu dajee ci moom te yëgu ca dara yëgul ak dara ja yëgul ak pouvoir bu nekk ci loxoom pour nit mën ko déstabiliser du yomb mooy li may wax sànq nit boo xamee ne dafa bëgg daraja pour nga déstabiliser ko dafa yomb boo dajee moom ci jotaay xam nga fi nga koy jaar point faible am pour léegi yàq toogaayam boo xamee dafa dafa am alal te ko hakaza xam nga fi nga koy jaar pour déstabiliser déstabiliser ko boo xamee ne dafa yor pouvoir te yëg ko xam nga fi nga koy jaar pour déstabiliser ko boo xamee ni it moom daf leen nawlawul daf leen xeeb xam nga fu nga koy jaar pour déstabiliser ko parce que loo ko wax lu mu ndaw ndaw ndaw rek day yëg boppam te bokk na ci faiblesse yi nga xamee ne nit nit bokk na ci melokaan mandarga yi complexe nit koo xam ni lu ñu wax mu mer lu loo wax mu mer lu nit wax mu gis ca boppam lu nit wax mu for ca jàpp ne moom lañ cay waxal kooku bokk na ci mandargay complexe yi léeg-léeg nit jiite ba noppi jikko yooyu daje ci moom it bu ko defee day tardé du mën a dem kon li ñu ciy jànge mooy yooye bu bu ca yarul boppam dina dugg ci guuta goo xam ni day mujj mel ne ni buur ya daan nangoo ab réew dominer ko yor ko jékki-jékki rek mu mu ñu récupérer ko ci seen loxo wala nit yor nguur nguur goo xam ni dafa tàmbali am ëffëri am mbooloo nit ñi topp ko dar dégg bëgg ko mu xëy jékki-jékki rek benn gone gu ndaw ne ko rokkac daal di daal di koy nangu ba récupérer chaise ba mais nangu xolu nit ña ca moom lu metti la la koy waral it yooyu da caa bokk mooy yëg pouvoir bu nekk solo loxo nga di ko xeexee bu ko defee la la koy màbbal lu tuuti lay doon te bu ñëwee rek da ngay yëg ni mbir ma jeex na noonu noonu lay mel kon nga yëg ni kon euh, ki nga xamante ni mooy doomu aadama bi saa baye xelne ci nga xam moy jamarlo ak mom wala ki nga xam daf ko jàppe comme opposant ki nga xam daf ko jàppe comme opposant saa wolo ni am yaqin ne moom tout temps mën na créer situation bu mu koy jema déstabiliser diko baye xel ak lu mu am am daraja ak lu am am tur lu mu amuk judd yoy sax du dara lu mu amuk alalit lu mu am situation yu baax yu mu nekkee lu deram set bu dee bàyyi loolu xel yu bari mën na koo bañ a bett ci moom pour nit ki mën a ñëw déstabiliser ko loola du yomb ci moom bu ko defee loola day def ci moom ak dal mooy waral da du jàppe du jàppee boppam ab dara ab dul ab jaam nit bu jàppee boppam ab jaam rek lu ko nit wax du ko jaaxal rawatina kuy wax ci gannaaw kuy wax ci gannaaw moom daf koy jàppee ngelaw càll mer rek du ko jox du ko jox du ko jox xiima day xani moom deram foofu noonu la toll ca ñooña kiy wax ci kanami ki kanamamit dina ko mën a gere dina ko mën a gérer mën koo dékku day dem ba da koy yóbbee sax léeg-léeg nit ki day wax ba noppi mu daal di muñ bàyyi mu jàll te lu metti la nag nit bu dee wax ak yow bëgg la déstabiliser gis ne muy wax ngay ree wala ngay muñ wala li muy wax safu la mer gi mu doon wut ci yow ci moom lay mujjee dellu day mujje dem boo moytuwul mën naa jël baaga sax di daggu loxoom ndax mer gi muy mer ci gi muy mer dootul xam fu mu lay jaar doomu aadama dafay yar boppam di xool toujours li nga xam ne mooy ay négatif di ko jé jéem a entraîner pour pour pour pour mën koo pour am man ci am maîtrise dana tax du neex a not te bokk na ci màndarga yi ñuy fale nit bokk na ci màndarga yi ñuy jiitale nit mooy yooyu mu man ko saytu xam ne muy maîtriser boppam xam ne muy maîtriser nit ñi xam ne muy yare boppam ba dootul jàppee du jàppee boppam dara ci mboolem yi nga xam ne moom moo tax ñi ñiy considérer nit comme nit ci société bi yooyu bu ko defee yàlla mën na koo dimbali ci lu baree baree bari ba lépp lu mu dugg rek da ci génn te du am lu ko jaaxal te du am du mës a am déception parce que lu ñuy wax ci moom rek moom loolu du ko jàppee dara parce que day jàpp ne moom nit la kële di nit rek faaw ñepp duñu mëna and ak yow faaw ñi ñii féeteeg ñi fété ak ñële am goo xamante ni moom du la digérer nga mën ko gérer tamit mom dale dula digérer yow yow tamit dang ko gérer rek bu ko def bo dundé nonu rek nga dal di noppalu da ngay am dundu gu équilibré wu inshallah té di nga jiboog yàlla te loo jaam yàlla yalla nangu te ni ko yàlla defal té defal ko mbolém julli bu dafa ñu yar suñu bop bu baax ci bakken yépp mu ngi aju ci bakken alal daraja turak juddoo yooyu yëpp ci bakken la aju euh, bu ko defee nit ñi buñ la dee jiital euh, di di la puus di la di la di la di la tóoj euh, ba la tax a jóg jàppale sa bopp comme ab jaam rek boo xam ni yàlla moo la teg seen kanam boole la ak ñoom nga ànd ak ñoom ngeen war a dimbalante pour société mën a jag pour ngeen mën a defar pour mën a dajag yàlla am ngër mën a yàlla defar defar ko mboolem jullit jaaxina masuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمديه Ahmadiyya, Yes الجمل احمديه لا فيزيون فيتور